arbitre bi woon ci diggi geew bi combat bi dox ci diggante Konia 2 ak Boy Pire arbitre bi laaj na ay juge am laaj na Konia laaj na Boy Pire arbitre am na lu muy Koña am na lu muy jat Boy Pire am na lu mu ñaan Koña Boy Pire Koña jat na ba noppi ñaan na ba noppi ñoo ngay lewaatoo Koña moo ñu woon ginnaaw Boy la nu jàkkaar lool Koña Boy Pire Konia Boy Pire ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar round d'observation mënu cee ñàkk Boy Pire Konia ñoo ngoy demee wet Konia Boy Pire arbitre bi àtte na arbitre baa ngi wax ak ñoom nee seen lewaatoo bi daa yàgg te dóoranteegu leen jàppanteegu leen Konia Boy Pire Konia day reculer di mel ni ku daa bëgg Boy Pire waaye Boy Pire bu ñëwee lu mu fay fekk Konia te stratégie la te yàkkamtiwul dara production ñaa Boy Pire Boy Pire cokaas na Boy Pire cokkaasaat na léegi Boy Pire Gogna Boy Pire Konia 2 Boy Pire xeex jàppante nañu añ na ko da teex laay Konia Boy Pire Konia ngi doon tenter prise ba koo waaye Konia loolu baaxul tànn nga ko benn demul nga tànt ko ñaari yoon demul Koña loolu baaxul Koña Boy Pire Koña loolu da nga koy def ko ëpp doole Koña Boy Pire Boy Pire door na Boy Boy Pire Kogna mbokk yi combat spécial be nekk noonu ci digg géew bi Boy Pire moo wan ginnaaw Kogna la ñu jàkkaar lool Kogna te amul droit def erreur looy def lu nekk daa war a leer ko takk na ko abit lu mu bëggaat abit ba yàq na làmb ja Koña daan na Boy Pire. Koña daan na Boy Pire. Koña daan na Boy Pire dee. ci digg géew bi. Koña Boy Pire abit nee na jël amul wala boog leerul Koña Boy Pire Koña Boy Pire Koña daa mel ni ku bëgg a dem Koña nga teg téere boobu sëriñ am na lay tekkiwaat na ma jox la nga tekki sànni am na lay de Konia Boy Pire Konia da ko bëgg a jàpp Konia Boy Pire Konia Boy Pire ko bëgg a forcer imposer ko daan na Konia Konia yoon ñaari yoon ñetti yoon Boy Pire daan na Konia Boy Pire daan